xew coronavirus bi lée waaw kañ lay jóge ci réew mi lé moo jara laaj en tout ci la solo yéene kaay waaw nee na bu ñu songaatee day moom corona gi ah duñ ko atal de maar di taal président Macky Sall daal di day profitoo ci ndaje mi nga xam ne moom lañ doon amal démb day way xarala ya mbirum numérique la ca jam ñaajoo démb ci teewaayu Yankhoba Diattara ministre ca la Macky kon xamalee sénégalais yëpp ne leen doomu jàngoro jàng fi ba léegi a xeex na suñu wàllum koom-koom gi la du ko attal te gis nga corona joojee ah maar day taali maar day taali le quotidien yi nekkaa ne dañoo nemmeeku ne mbir mi kat daa commencé yéegaat maar day taali waaw waaw moo tax Macky Sall na xelam tey ci ñaareelu vague ba te gis nga nag Macky nee na bu boobaa koom-koom gi du ko attal de critique yéene kaa ne jug leen alerte rouge ndaxte Sénégal tey lu tolloo fukki junni ak juróom benn laa lay wax nii ci kaay ka mi koy waaj a ca gën a dee la mu mabal daal ci lu jëm nag ci wàllum investissement boo ko xaymaa toll na ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay milliards de dollars la ilaha illallah six cent quatre-vingt-dix milliards de dollars la ilaha illallah cay corona gi le yow ca jamono joo xam ne maanaam corona gaa ngay rey suñu wàllu koom-koom gi le waaw entreprise yaa ngay xale yaa ngay jël géej ga ah. ca jamono jooje le président Macky Sall waaw yokkal Idrissa Seck ñaari milliards yaa jum wala maa jum ma ne tribune yéene kaay moo ko wax nee na budget conseil économique bi yokk nañ ci ñaari milliards laa la wax la ilaha illallah léegi day wii ñetti milliards deux cent quarante quatre millions deux cent quarante six mille deux cent quatre vingt quatre francs allahu akbar yéen kaay gi ne te moo ni bi fa Aminata Touré day waaw juróom benn milliard yu tëgës lëf la léegi bi ci Idrissa Seck boobee yegg na ci juróom ñetti milliards yu tëgës lëf maa la wax li la de dama ne la démb kon ca assemblée nationale assemblée nationale googe nit ki démb tribune yéen kaay nee na député day defati nañ seen manin de xuloo xeex robinet député Benno Bokk Yaakaar bi day nee na Cheikh Abdou maa la mën maa la ëpp doole boo fi génnee dama lay maa la wax lii de parce que Cheikh Abdou Bara Dolly day Mame Boye Diao directeur impôt la daal kon song rek waaw les écoles yéene kaay moo taxit opposition bi xaw nañoo rey waa gouvernement Macky Sall bi démb assemblée parce wax yu ñaaw yii ba ma juddoo ba léegi ni la mësuma koo gis Moustapha Guirassy ah nee na xanaa xamoo leen cooli cooli mooy seen fast track bi lii ñuul day bon le moo de fast track la 24 heures yéene kaay ne xoolal ma Sénégal ak wàllum opposition maa la ko Birahim Seck Forum Civil day nee na Sénégal ci gouta googee zone rouge bi la ko war a génnee maître Ndeye Fatou Touré waaw nee xanaa xamoo ne ger gi nga xam ne moo làqu boobu bi bon la corruption secrète boobu mooy bu bon yéene kaa ne en tout cas financement wa entrepreneuriat gi lée waaw Aïda Mbodj nee na na leeral na mi leer Aïda Mbodj xamal na Pape Amadou Sarr ne ko ndaw yaa ngi ni lée ñu xañ leen financement jeunes yi amuñu benn financement laa ko ko wax waaw ne Pape Amadou Sarr yow laay waxal ndax mbir mi leer ay da bëggul lëndëm de nay leer saay les si ko yéene kaay ne en tout cas Abdoulaye moom leeral na budget bi ba mu leer nañ ah, xadar ci boppam la ko doon ay argument Abdoulaye Daouda Diallo ci bëgg su daal xam le na ne bi nga xam ne moom la suñu réew mi yox ñun tereewu ñoo dund te mën nañ koo fay yàqaluñu dara marché yaa ngi yàqu dé tur bi yéene kaay ne ba nga xam amati na kon ci Castor gii ay millions et millions ñoo dem laa la wax dépôt bee defoon ngooñ ba day ak jur ga ay garage mécanicien ak ay atelier frigo fala lakk ga war a moderniser évidence yéene kaay ne marché ci leen ba ca Ziguinchor moom la waa AGETI bëgg a moderniser de def ba mbaax waaw campus bi université Assane Seck ca Ziguinchor directeur Alaaji Malick Gueye ma nga ca chantier de ca diwaanu gi ñoo na critique yéene kaay ne na ba ay réalisation président Macky Sall fee tey ñëpp teg seen plateforme xifil xool waaw song nañu Kaffrine te Tambacounda ak Kaolack ak Sokone aa bu ci Mamadou Ndiaye Bambey mi la ak Malal Diallo nee nañ président liggéey bu leen neexee en tout cas ngay waaj a liggéey day ca présidentiel ba ubbil la a dellu si waatu Karim Wade mu nekk dellu si bu rëy rëy nag lii lañ jiital PDS bëgg sur quotidien waaye Macky Sall day waaw Abdoulaye Wade de lay toppandoo ci wàllum ajub élection moom jël na raw na ñëpp parce nguuru Macky Sall gi moo fi njëkk a ay élection locale lu tolloo ñetti yoonu yàlla yàllaa wax ñetti yoonu yàllaa ngi nii Macky Sall kon di aj élection yi lii lu ndee moo njaay sii sé nee na aju élection yi la muy jur du baax de la muy jur du baax te classe politique bi ak société civile bi day nguuru Sénégal geeg yi la ñu jàmbaaraamu tuuma laa la wax di aj élection ka aja ka aja aja laast kuréel bi nga xam ne moom la waa APR te day ngir nag seeni nit di dem ci télé ak ci rajo yi di leen défendre waaw Mame Idrissa a day dekal na Awa Gueye Kébé de aha maa la ko wax en tout cas Macky Sall daal ma ngay dooleel ay alliés moom bu ñu sukkandiko ci enquête yéene kay direct news ne waa kër Macky Sall yi nekk ca palais ba day fakon yo waaw doy na waar parce que Mahmoud Saleh mi la convoqué nag responsable département yu Mbour ca diwaanu palais kay di Italie waaw te loolee nag bokkul ca lañ koy doyee ca palais ba day mbir ma kay la muy saf mooy wàllum complot mar di Italie yéene kay Sall kay mooy xaritu Mimi Touré Cheikh Issa Sall kon moo indi woon Mimi Touré ca Mbuur ci affaire tribune yéene kay ne maître Malick Sall day xamal na procureur yi dem démb seen dajama lu bariwul nee na leen am na ci ay tojaange ak ay cas vraiment yoo xam ne jarul ay mandat de dépôt ngeen ciy tëj ay nit kaso yéen procureur yi mbiluñ mbàcc rek mandat de dépôt mbiluñ mbàcc rek kaso mbiluñ mbàcc mandat de dépôt mbiluñ mbàcc kaso <laughs> waaye nag procureur yi nañ xam ne ak luñ mën a tëjee tëjee tëjee tëjee tëjee tëjee tëjee ñi yor suñu pétrole bi kenn waru leen fi woon a bàyyi waaw parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal